tànn ba suba tey jii dañ koy tàmbalee surtout quotidien ñoom nag dañoo fasal seen xëpp njëkk ab partenariat de pêche durable maanaam daal ab lëkkaloo ci wàllum napp boo xam ne Sénégal na ko am ak lii di union européenne muy nekk loo xam ne nag kon lu am solo lay doon jamono joo xam ne nag xam nga suñu nappkat yi dañuy faral di kaas naan ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew te dañuy daal jeexal jën yi si géej gi tax na kon euh, yooyu la kon euh, xaajin buñ ko amalatee suñu diggante xam naa du ñàkk dinañ ca gën xool li nga xam ne moom mooy intérêt euh, réew ba Sénégal soxna Fatima ñu jàll ci le soleil jant bi. ñoom yéenekaay ñu ngi fasal seen xët bu njëkk Bassirou Diomaye Faye njiitu réew mi ak nag euh, bokk ba muy bokk ci li nga xam ne ab sommet extraordinaire la boo xam ne Ligue arabe ak OCI organisation de la coopération islamique ñoom ñoo koy amal euh, jamono ji ngir nag euh, jafe-jafe yi nga xam ne fi mu nekk nii waa Palestine ak Liban ñu ngi koy dund ci seen jàmmarloo bi nekk seen diggante ak nga xam ne moom Israël moom moom fa taxawaay bu am solo ci Riyad moom Bassirou Diomaye Diakhar xamle ne nag li nga xam ne daal moom mooy ONU ab nga xam ne tekkaaral na ko muy conseil de sécurité ba ci nag ñaawteef yooyu nga xam ne Israël mu ngi koy amal ci kaw Palestine ak Liban nekk na loo xam ne dina tax seenu crédibilité kon sax dinañu ko dinañu ko dinañu ko xoolaat kat nañ it ci li nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak nag démb kàddu yam yëkkati eh, gannaaw nag eh, jëmale ko ci Barthélémy Dias gannaaw ab cong boo xam ne dafa amoon ci seen ñooñu fële ca Saint-Louis. ñu jàll ci Vox Pop. ñoom ñu ngi fësal seen xët bu njëkk violence électorale bi ñu ngi ko sax euh, titré ñu ne attention euh, en tout cas virage dangereux euh, ci mm. campagne bi nga xam ne kon mu am nii ñu ne deret mu ngi say tuuru ak yi ni fi mu nekk ni nag nee nañ nañu def ndànk ndax nag day raam ca ñag ba la mm-hmm. buñ ko en tout cas artuwul taxawal li ni mel démb Ousmane Sonko ne nag lii di gatsa gatsa bi kon dina dikkaat jamono joo xam ne nag mu doon addu jëmale ci Barthélemy Diaz muy xamle sax ne kon bésu tey jii dinañ fa amal ab caravane foofu la di euh, Sicap Baobab nga xam ne kon mooy fiefu Barthélemy Diaz ak nag addu ya nga xam ne ministre de mhm. artu na leen ko euh, ñi nga xam ne kon ñooy acteur politique yi sono Fatima ñu taxaw ci Walf Quotidien ñoom dañoo fasal seen xóotu njëkk bataille de Dakar ba léegi xeex bi ci capitale bi ci élection législative yi ñu ne nag dernier virage boo xam ne am na au risque maanaam mu nekk nii daal nit ñi ci nen la ñu toog joo xam ne nag kon euh, coow li jolli na trop nga xam ne mooy ñaari tête de liste yi di Ousmane ak Barthélémy Dias la ca mujj coow li nga xam ne am na démb fële ay image yoo xam ne yu ñaaw la sax ay yoo xam ne kon euh, ay ngànnaay lañ euh, am ci ay ne nag dañoo la ko waral mooy ñoom ay partisans Sonko la ñu ne daal dañ doon Sonko Sonko looloo waral kon mm. ci jamono yoo xam ne caravane sàmm sa kàddu ak takk wala ñu ne nga doon romb ci la jàmmarloo yooyu amee mm. wante it fësal nañ li nga xam ne moom mooy euh, président Diomaye mi nga xam ne nag euh, mu ngay joxoñ baaraamu tuuma mm-hmm. conseil de sécurité bu ONU ci nag violence ak rey yu ñaaw yi nga xam ne eh, lii di Israël mu ngi koy amal ci Palestine ak fële ca Liban soxna Fatima. mu nekk lu am solo na nañu jàll ci le quotidien. ñoom ñu ngi fasal seen xët bu njëkk jëwriñ di ñu denc dénk wàllu biir réew mi ak lépp luy sécurité muy ki nga xam ne mooy Jean Baptiste Tine muy nag addu jëmale ci ñi nga xam ne ñooy acteur politique yi. di leen nag mhm. artu ci violence bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci lii di euh, élection yi kon euh, lépp nag luy attaque jëmale ci caravane daal tere na ko te nag artu leen. Mhm. ne nag kon képp koo xam ne rek euh, yaa ngi def li ni mel euh, war na am euh, lu dal sa kaw kon mm-hmm. ci wàllu yoon kon nag woowaat ne ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs politiques mm-hmm. ku nekk jël nag li nga xam ne moom mooy say responsabilité ci jamono joo xam ne nag comme ni ma ko waxee léegi violence électorale bi nag mu ngi wulee ñaay lool ci li nga xam ne moom mooy campagne bi. mu nekk lu am solo ñu yéeg taxaw ci libération. yéen kay ñoom nag ñu ngi fësal seen xëtu njëkk mbirum Prodac ak nag coow la nga xam ne eh, judduwaat na ca fan yi gannaaw bi ñu toogee loxo kii ñu wooyee Mamina Daffé ak Ibrahima Cissé fi mu nekk nii nag seen mbir boo moytul sax ñoom dina gën a doy waar ndax nag ubbi nañ ab information judiciaire te ñoom di leen toppee nag mbirum escroquerie de deniers publics faux et usage de faux ak li ñu naan blanchiment de capitaux fi mu nekk nii nag kon loolu leen toppee ubbi ci ñoom ab information judiciaire ngir nag kon gën a lijjanti mhm. seen mbir ci wàllum yoon ci coowal Prodac googule ñu daal di taxaw ci enquête yéene kaay ñoom dañoo fësal seen xët bu njëkk Ousmane Sonko mi ñu ne dekkilaat na gat sa gat sa ja démb nag euh, gannaaw bi nga xamee ne kon ab congo dafa am jëmale ci ay ñoñam ñoo xam ne ay partisan lañu fële ca Saint-Louis ba tax nag mu ne fi mu nekk ni daal nañu vengé wu woote sax ab mobilisation ab caravane boo xam ne nañ ko amal leena tey jii ah. fële ca Sicap Baobab ba nga xam ne Barthélémy Dias fa la fekk euh, baax ci jamono jooju nag ministre de l'intérieur it posal mm-hmm. nañ ko mu leen di mettre en di leen artu mm-hmm. ngir nag lépp luy violence ñu teg ko ci suuf wéyal li nga xam ne moom mooy bile campagne ñu xuus ci lobs l'observateur ñoom ñu ngi fësal seen xët wu njëkk génn ko àdduna ka fi nekkoon euh, ministre des finances et di Moustapha Ba ak nag digg bi nga xam ne tàmbali na ay audition maanaam di déglu ay nit ci mbir yooyu ñu ne nag euh, yi nga xam ne ki nga xam ne mooy Yacine pal ak nag euh, Yacine Sall Ba ak nag kii di badu Diédhiou déglu nañ leen démb fële ca division des investigations di dikkaat nañu ci li nga xam ne moom mooy violence bi ak nag euh, li nga xam ne daal mu ngi xeeñ te nag nekkul lu neex muy nag euh, violence biñ ci nemmeeku ak nag woote ba Ousmane Sonko woo démb ay ñoñam uh-huh. ngir nag ñu fayu gannaaw kon attaque boobu am muy sax euh, beneen attaque gannaaw bi nga xam ne attaque na attaque euh, jëmale ci seenu en tout cas ay ñoñam muy xamle nag kon ne dinañu basé wu soxna Fatima. ñu jëm ci li quotidien ñu ngi fasal seen xët wu njëkk appel à la violence électorale éviter l'irréparable nee na daal kon ne ñu daal moytu loo xam ne bu xesee ba yàqu kenn dootu ko mën a jubanti kenn dootu ko mën a defaraat muy nag li ma wax sànq nee nañ nag lii ramte ñu ñag bala jëm kon nag la ñu moytu mhm. di woote nag ñaari parti yi fasal seen li nga xam ne mooy xët bu njëkk Ousmane Sonko ak kii di mhm. Barthélémy Diaz mu dar jëmi nga mel ni ku euh, jommi jamono joo xam ne nag comme ni ko waxee xam ne ñooy ay ñooñam daal ñu mobiliser wu euh, mais ne moom mooy en tout cas fii ak Barthélémy Dias mi si kàbb baobab amal fa ab caravane bésu ba tey jii loolu ndax tax kon ba journal lii quotidien di leen artu ci li nga xam ne kon moom mooy loolu le fas nañu tam ki nga xam ne moom mooy Pape Abdourahmane di PCA bu AIBD mhm. nekk di responsable Pastef ca Mbour waxtaan bu ñu moom mu ne nag euh, ñoom daal seen objectif mhm. mooy euh, bugguñu def loo xam ne ni day yées élection présidentielle maanaam ci li nga xam ne mooy législative yi ñu jëm mhm. nee na daal espoir ba ñu bëgg a am mu mu yées li nga xam ne mooy président kon daal dañoo bëgg a am loo xam ne. lu mhm. ëpp li ñu amoon ci présidentielle bi la ci élection législative bi nga xam ne moom la ñu dëgmal. ñu yéeg ci tribune sport. moom lañ koy jeexalee ñoom ñu ngi fasal seen xët bu njëkk pour Burkina Faso ak Sénégal match ba ñu war a amal nag euh, nekk ci cadre li nga xam ne moom mooy. Euh, qualification CAN 2025 mm-hmm. ca Maroc ñu nag vingt joueurs participé nañ ci première séance d'entraînement mm-hmm. bi euh, wante it dikkaat nañ ci ab ay neexal yu am solo yoo xam ne fédération sénégalaise de football neexal na mm-hmm. ak ministère ba ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, gaynde bis su yi nga xam ne lu yàggul dañoo jël coupe d'Afrique wante it ñi nga xam ne ñoom ñooy les lions U17 yi jël champion UEFA soxna Fatima mu nekk am solo ci monde sport ku mën cant ak gërëm ne ñeel na la dafa mel ni lii moo gënoon fës li nga xamante ni moom mooy euh, si bopp yéenekaay yi